Cheikh bu Reug Reug Cheikh maa ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay Mbaye Babacar. di anam di nuyu waa Sénégal yëpp. anam mbër. mbër mu dem na Singapour. Reug Reug waaw dem na Singapour waaw. fan la toll. waaw ñun instant yi moom pare nañ moom. di ñaan yàlla yal nañu suñu borom may ndam. di wax sénégalais yëpp ñu ñaanal yàlla may ñu ndam bu sedd bi. loo gis ci combat bi. waaw ndam rek incha incha allah si nga a si nga doon champion pare na. waaw pare na moom wax dëgg neex yàlla pare na bu baax a baax a baax. dégg nañ ki muy ki muy jàkkaarloo dafa wex xat. waaw ah, mais dara ñun moom lu wex xat jaaxaluñu quoi parce que comme ni ma koy waxee rek chaque jour nit boo bëggee daan champion da ngay nangoo xeex ak champion yi xam nga noonu la demee. kon d' accord ngeen di daje. waaw ah, champion ñun moom bu ñu dajeel moom xam nga tey ki ñu ñu gis ba boole leen. am nañ yaakaar ne sa adversaire mën na laa gagné moo tax ñu boole la n'est-ce la demee rek comme chaque jour ñun dañuy jàpp ne adversaire bu ñu jox rek xam nga adversaire bu dangereux la pour ñun ñu def si liñ si war a def rek dañ ñu mujj a dégganteeg rek léegi nii rek avant maa ñëw si làmb ji ñu ngi déggante lan nga yëg bi nga dégganteeg <laughs> moom moom moom moom li mu mel noonu la mos a mel te jàpp nañ ne chaque jour noonu lay mel malheureusement sax waxuñu sax waxu combat bi ñu ngi ayca ayca mbër kon euh, kàddu gu mujj gi lan la. waaw di di sàkku si ñëpp ñaan waa Sénégal di wax ne kontaan nañ si bés bi nag xam di ñaanal suñu papa Gaston moo xam li mu bëgg yàlla na ko ko suñu borom dabal comprendre nga di wax ne tamit xam nga làmb lii moom namoon nañ ko na gars yi gaaw bés yu mag yëpp gars yi mun a bëre quoi après ñu wëri leneen. rek rek guy gi waaw boobu tamit xam nga lu ñëwagul moom mun a ko see xam nga comme dañoo yenu paan bu ñu coow li bari na waaw mais comme dañoo yenu paan bu ñu wàcceegul moom xam nga nañ bàyyi ba yenneeku bële rek soo ko téye ñu guy gi ay ca jaajëf nag jaajëf mbay baax la Ando para yo saber